xiif ah damaa xiif de wax dëgg yàlla xam koor koor koor li ci gën am solo mooy damaa xiif waaye waaye waaye waaye waaye sama mettitu démb gii sama mettitu démb gii wóol ah, métti sunu métti ñëpp a métti. waaw yéen xaalis dem saa xaalis a dem. sa xaalis waaye boole nan la mën a yambaree yambaree ba gone googu nga xam ne ab liir la di ko gañe tey laa jombi xale boobu est-ce daaw ko tuur sax lekk bi est daaw ko mujj gi de waaye ba naa ne gone gi da doon lekk su kay da wan moom moom am naa la ilaha illallah dégg ko koy yaama coog coog boole tamit déception bu ñu teg dem métti na. ay sama 400000 yi. sunu 400000 ah 400000 kay suñu 400000 la ndaxte ah. korité bii ñëw ba pare. mënoon naa ci xool xajoon na feneen de. de ñëw def ci cheveux bu rafet am ci yére sañse. te sax man loolu ma gis ca table ja man bu ma yëgoon ma maay defal compétition de saa boobu. wala nga yóbbu ko moom maay ko moom nga waroon yóbbu ndaxte moom mii dafa lekk katu ginaar dafa lekk ginaar ba niróo ginaar. ñun ñaar ku ci gën a niróo nag de wax sa danaa képp comme ginaar ku ci a wax eh, ay waxi ginaar <laughs> ah, dama xam naa ngóor xam ah. naa xam naa boo moytuwul sëñ bi loolu la gis feneen moo tax ndogoowu fi moo gëlaay ngi noonu dem a jox nañu ko ma bëggoon rek ma jéem koo xaaf nga jox ma sama wàll ah waaw ma ne nga xaaf ko jox ma sama wàll balaay balaay balaay balaay Codou Mbaye yaa ngi soppi ko de ah déet sëñ soppi man de man lépp ak ci gis ak suppu. xam nga lu ànd bi léegi ci neen gàllaay ay dóoram la yor léegi day dóor rek. waaye sëñ bi foo xamee waaye sëñ bi démb nag. Eh. am nañ lu ñu métti waaye moom it am na lu ko métti lool. léegi te man leer na ma ni gis nga góoru tukulóor ko leer na ma ni ay millions la indi loon sëñ bi ndax li mu waxee ni li ma indee ëpp la ma daan indi. ay millions la woon. Ah, nag rek la ñuy client bu mag a mag mag. man fan bi li mu doon laax yëpp dégg naa. xam nga lu ma xam fi ma tëddoon nii. dégg naa li mu doon wax yëpp. xam nga kii client laa lépp la wax. xam nga lu ma gën a neex nag lu ma gën a neex. bandi Maodo. Mhm. xam nga lu ma gën a neex bandi bandi tukkusel bandi Maodo mooy bandi bu mag. waaw Maodo mooy mag. tukkusel mooy bu ndaw. wuy ma xam nga lu ma gën a neex bi bi waa ji demee bi sëriñ bi xaw ma góoru tukulóor gi demee. Mhm. ma ba may yëndu sëñ bi nii la def sëriñ bi waaw. waaw xam nga moom lépp moom ma ne ko boo doon galaas seey de. man est-ce que moom mën na tari Fatiha bu egg Fatiha bu egg est-ce que mën na ko sëñ bi. yow nga yor sa martu di dóor. ma yor sama martu di dóor. ma sëpp kuy dóor. ñun ñaar ñëppay dóor jox ma sama wàll. ah galaay ma ne may aras booy woo xam ne. ba jeex xoolal baal waxee aras teg ko ne le man waxee ceddo laa wax. Ah. Eh, ginnaaw noonu nga ko gisee ba daal yow arrêté léegi moo la gënal firdaw si. man firdaws si. àjjana man àjjana. baax na. nag maa gën a taxaw yow. mënoo maa taxaw di. Ah, baax na ay moom. seet naa sab taxawaay de. day daal alal daal nga jiital. maa ngi sëñ bi da ngay dóor damay dóor. li nga jiital du lenn lu alal. waaw waaye ah, baax na rek. waaye ah, baax na. li fi dogal du fi lii du dara. waaw tax nga bëgg ko téye nag comme du dara doo ma jox lépp. ah. benn ñaar. ah nga ne. eh du ma ko jël de. dama ko jël de ñett dollil boobu mu am ci ñaar la de ah. dama ci sama bopp góor bi waaw ah, koo bëgg a wataat du ko wataat de def périg bu baax def jeeg korite gi ñëw la ah. nijaay li jot na de sa bopp bi di mel ni turbine sa bopp bi war a yem yow périg baaxul ci arrangé wu la bàyyi ko nii rek man léegi ñaareel laa poulet du pays ngay ndoro damaa bandi ma léegi léegi xam ngeen seen bandi góor yàlla bi lay wër xam nga nu ngeen di def dangeen ngeen may ñaanal ci kat ni yàlla ak mbaaxam bu wërsëg dikkee ñu mhm. korite ñaanal leen ma rek ndax fi mu toll nii maa ngi xool saay technique ak saay kii waaye daal ah. ah, ñaanal leen ma rek. ñaanal leen ñëw na de ñaanal leen ma rek. leen ma moom dana baax ñaanal leen ma. ah mais ñaanal leen ma du débat ni jaay confirmation la yow ñu ñaanal ku ñuy ñaan. su ñu ñaanalee nga ñàkk ñun torox nañ ci. am mhm. ah, moom di ko def. Mhm. waaye nag da war a gaaw. heure bee jot. Hmm? daan naa gaaw de. ah léegi laa yéex rek. yaa dem dugg ci loo xamul de. waaw gaaw de. daan naa gaaw de. say jamono rek. man. say jamono rek. Ah. xanaa xamoon saa gaaw a tax sëñ bi ñëw fi sa gaaw sax moo tax ga takk moom ba muy ñëw yëgul ne damaa man ma la naan jàpp xam ne da nga xam àqu jigéen ci yow te yow yow moom ba ngay dégg dañ laa indi kii say mbokk ñoo la ko ma laa forcé yow nga ma ko de waaye daf jox li ma moom xanaa na mm-hmm. kii rek mm-hmm. sëñ bi tey ngaa ñëw. baax na rek ginnaaw ginnaaw nii nga ko nar a doxalee. ak ah, yooyu daal. salaamaaleykum. waaleykum salaam. da ngeen def. dañ koy ñaar fukk yu ma ndagoo laay ñaar. ma dama nga liggéey. ay waay ji dimbali leen ma. fii sa morom la. si dimb guddi bi nga ñaan doo dem nga liggéey. yërëma lu ma ndagoo. demal nga liggéey yàlla. demal liggéey. fii dama dama liggéey. dama liggéey ñàkk ma dem trop. ñàkk ma dem lool. voilà.